livre yi benn bi mi ngi mi ngi ko tuddee Bassirou de la prison au palais présidentiel beneen bi sur Ousmane Sonko la controverse politique au cœur du Sénégal moderne beneen bi sur Thione Seck ñëpp def nañ ni ci taarix way rafet la fi bàyyi euh, ak les fondamentaux du pétrole et du gaz xam nga ñun Sénégal pour euh, war nañu bëgg waa war éviter li dal ci yenn réew yi nga xam ne am pétrole mooy les malédictions des ressources yooyu yëpp yëma ko ciy bind pour pour que ah, exploitation bi une l'entrepreneuriat féminin structure ay organisation yo nga xamni dañ leen permettre famille parce que dafa am solo ak banen bi la performance politique de entreprise yan jeexital la amee ci wàllu nekkutul entreprise bi xaalis bi rek la war a occupé mais dafa war a occupé wu ci l'engagement des euh, salariés ci bien-être salariés yi ba pare di def responsabilité sociétale de am c'est-à-dire di intervenir ci environnement bi euh, xool askan wa fa nekk muy leen di accompagner ci éducation ci santé ak ci environnement téere yi li ma ci jublu mooy partager sama maigre connaissance xam-xam bi nga xam ni moom laa taataan te parce que man dama gën nii xam-xam dañ ko war a euh, wasaare euh, moo tax euh, téyuma ko pour man rek dama bëgg askan wi tamit jëriñoo ci donc école de formation yi war nañ ci mën a bénéficier entreprise aussi war nañ ci mën a bénéficier man daal maa ngi nii ku ñëw mën naa accompagner la partager li nga xamni parce que man militant formation la mangi ministère de la formation professionnelle ci loolu la xey ci lay gont donc mangi xaar askan wi li fi nek ma bokko ko ak ñom ba nga xamni askan wi dina yok ba yëg ko